mbokku Sénégal euh, ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di ñaan yàlla lii nga xamante ne mooy balaa dugg ci réew mi yàlla teggi ko loolu nag bu ñu koy ñaan mooy bu kenn werante ne am na ci réew mi kon gannaaw ñaan yi ñu war a ñaan ku nekk ci li nga gëm pour yàlla musal ñu nañu farataal li nga xamante ne moom la ñu autorité sanitaire yi wax muy docteur yi ci bañ a joxe loxo ci bañ a euh, booloo Eh, moytuwante ba nga xamante ne lépp liñ ñu wax dana tax bu ñu ko defee feebar bi mun a taxaw ba nga xam ne du law ci biir réew mi parce que law ci biir réew mi mooy coono bu war a am te moom la ñëpp war a éviter kon maa ngi wax sama mbokku Sénégal yëpp ñu def li nga xamante moom la ñu waa Kër Docteur wax te bañ a am kersa bañ a joxe loxo bañ a dajaloo ci xew yi bañ a dajaloo ci fenn yàlla dinañu musal ci li nga xamante mooy coronavirus